oustaz ci réew mi yaa ko dàq sañse loolu la yàlla def kenn du yow faal faal kenn du yow faal doxal faal doxal ma xool faal doxal oh xoolal démarche bi suuf bi suuf bi xaaral yii Maria Dukku la ah Gucci yi ay Gucci non non non tout oustaz képp kuy oustaz si ci réew mi yaa ko dàq sañse doo seen morom ah non ma lii waay da nga da nga wuteeg bi bi nga xam ne benn blanc bi depuis deux deux semaines moom la ñuy sol. waaw waaw kële kay xaw ma dafa moo xaw ma lu mu def. yow la de. bii kool maa woon bi woon dem bii kool maa woon la de. ana boroo de nga sol wala wala wala dërëm yaay. kenn du yow. kan ni dërëm yaay. wala bu baax. du lan. dërëm yaay luy dërëm yaay. si si boobu xewoon <laughs> man mosuma xam ne loolu am na sax daaw ma ko sol xanaa da nga ko daan sol yow mosuma xam ne am na de. loolu. man ndeke bi may wax Modou Fall xooluma sa yére bi. mais directeur mais non non dëgg neexul. fan nga gisee sol yére bi ñuul. waaw teg mu ñuul ah? dama koy kii rek ay dóor la rek. mais kenn du ba pare ba pare qualité mbasa yi bokkul. du benn du benn directeur waaw yaa leen yaa leen mën yaa leen mën yaa leen mën. Moodu mbaxana mu ñuul la sol dàll yu ñuul yére bu ñuul lépp ñuul waaw. waaw day métti waaw dañ koy doxalee yow moom te yow xool ni nga nuancé mot bi couleur mot clair ak mot ah kon oustaz oustaz dañu naan affaire bi loolu la non wala boobu daf la rëcc ban si affaire bi loolu la affaire bi dama ko doon bañ wax ci kaw rek waaye yaa leen man non non non am classe classe